président moo ñu ko gën a kii mais man maa ngi door a dégg sax ay euh, organisation face à face ci mois de septembre parce que balaa tam ñuy commencé defe naa saison ouverture de temps officielle day am. Mhm. Euh, CNG joxe euh, kii ba ba pare ñëpp ñoo xamante intersaison ba nga war a renouveler manager defe naa nga war dafa lu ngay renouveler. Mm, lutteur bi am lu muy renouveler. Mm. promoteur bi am lu muy renouveler. déjà écurie pour être en règle par rapport la saison. Mm. yoo xamante ne si si CNG bi. mais loolu yëpp dafa doon liggéey administratif à mon sens boo xam ne tant que amuñu ko munoo munoo tëggalaat parce que la saison n'est pas ouverte. voilà xam nga foofu ñun on a clôturé la saison le 15 août passé ñu ne dañuy def pause un mois on reprend le 15 septembre pour les formalités administratives maanaam du 15 au 30 septembre ci la ñuy def licence yëpp tout ce qui est licence beurre. promoteur manager euh, et cetera donc là c'est la préparation préparation de la saison donc la saison est officiellement ouverte le septembre mais pour les formes administratives hmm. et les combats démarreront le 1er octobre et on va faire ubbi tey bëre tey parce que le 1 octobre am na gala et le aussi am na ba gala mais quand même là elle est déjà ouverte officiellement elle ouverte donc nit ñi war na ñëw renouveler seen i këyit licence yi muy promoteur muy manager ñëpp war nañoo ñëw et puis ñoom parce que li ñu éviter xam nga saison day jot mu am weeri koor mu am ay yu tax ñu arrêté saison bi mm-hmm. ñu ne on veut une saison pleine octobre ñu commencé vraiment dérouler parce que saison bi passé am nañ ay élection ci biir saison bi ak weeri koor bi mm-hmm. donc dafay écourté wu l'autre année également il y avait la mm-hmm. Covid alors qui a fait effectivement ñun mënuñu am temps ñun nag ren lañ dem octobre rek ñu ubbi parce que boo ubbee octobre ni ñu doog a commencé monter combat yi vous da ngeen di bëri ji en janvier maintenant ñun on a autorisé ci biir saison bi bële saison bi passé ñun ne ñi nga xam ne am nañ ay combat ñu ficelé mun nañ ñu jàpp date pour saison bële comme ça bu au moins fekkee nekk nañ ci la période de basse saison ñoom ñu mun a nekk di préparer mbir yi aussi di entraîner comme ça bu ñu ubbee rek vraiment ni ñu mun a dem bëri ji waaw donc on a fait cette planification là pour que vraiment mbër yi aussi gis seen bopp amateur gis seen bopp les promoteurs et managers également. Mhm. pour sama curiosité